Euh, mbas mi aussi fait nañu ko fa parce que quand yi bu ñu euh, automatiquement il y a une surveillante qui est devant euh, la porte ñëw xool seen température ak thermoflash bi donc gis nga ko ñi ngeen koy gisee ci image yi donc bépp xale boo xamante ni rek ñëw na euh, passage obligé la dañ lay ñëw ñu xool sa température donc bu ñu xoolee sa température xam naa dañ leen di bàyyi ngeen xool image yi après ñu continuer comment. deux mètres donc comme ni ngeen ko gisee noonu ci image yi moo tax ñu tàll suñu micro le principal mu am. c'est Mamadou Ngom le principal du CM voilà. tey réouverture léegi ñu bëggoon lépp li nga xamante ni moom la gouvernement

en plus de ñoom li ñu jox am na li nga xam ne ñun ñoo ko wutal suñu bopp euh, pour que rek vraiment affaire bi mën a mën mën a yemb pour ñu pour ñu liggéey. ah yi ñëwoon nañu ca njëlbeen ca bi ñu programmé le 2 ñoom ñëpp ñëwoon nañu ba jël seen emploi du temps par la suite nag ñu ne reporté nañ affaire bi ñi nga xam ne peut-être fi ñu dëkk sorewul ñu déllu am na ñi nga xam ne ñoom dellu ñu ngi fi sur place les, euh, léeg sax dañu ñëw école kii ci fan yi nga xam ne ni defuñu dara dañ daan ñëw école waaw lan ngay euh, ban message ngay lancé parents d'élèves yi nga xam ne tamit peut être war nañu mën a anticiper ci yenn mesures barrières yi balaa xale yi di ñëw école waaw xale bi moom euh, lépp li nga xam ne moom la ñu moom la ñu kii moom la santaane parents yi xam nañ ko mën nañ ko commencer di leen ko jàngal ci kër ga di leen ko tegtal Euh, la dalu ca kër ga ba ba ñëw école ñu jël seen disposition bañ di jaxasoo bañ di nuyo et vraiment di sol seen masque euh, respecter les gestes gestes barrières là comme comme on le dit mhm. waaw. waaw man la Adama Ndiaye maa ngi fii di jàngi école Bambey def troisième B. ah xanaa ñu jéem a góorgóorlu rek te topp tegtal yi daal. tofu tawfuma do barrière li ñu digal ñu koy def di moy tel ah si si dina difficile mom mais xana ñu jëm ko affronter fexé agal anamé jam ak jàmm ngeen daal pour affronter difficulté yi pour jëm am sen defem dem sen yoon wa paré nañu wa man la njéeme njaay dina metti nag lool mais dinañ ko jéema a mm, maintenir daal le maximum pour ñu lii ko continuer ko waaw ñun nañ am suñu diplôme rek waaw ak lu mu munti metti metti metti nañu am diplôme bi rek même bu doon xuus ci jàng si taw bi tamit jaral nañu ko waaw ñun ànd nañ ci waaw